At least I can say that I've tried. nuyu naa leen ci biir Seneweb le site numéro 1 dans francophone émission di Seneweb news nga xam semaine bu nekk ak ki may dalal suñu biir kër gi tey nag du ma wet benn yoon ndax gu nekk Pekin gi laa fi dalal kooku nga xamante ne dafa gàddaayoon génn réew mi dem immigration comme jël si waat na rek waa dañ ak ñu def suñu waxtaan muy ñu ngi lay nuyu di la dalal biir kër gi waaw euh, ma ngi lay ci émission bi mhm. ah, di kontaan ci li ma dalal naan rek mhm. euh, di nuyu Sénégal ah di nuyu képp koo xam ne rek fan su Baka nga mm-hmm. aussi di ma bëggee rawatina tey nga gis ñu fi nga xam ne tey mooy Seneweb mm-hmm. euh, di leen bëggee bu baax a baax di sant. Euh, Euh, yàlla bu baax a baax di julli ci Yonent bi di sant sama ñaari waajur waaw di kontaan. waaw Backa ñaa ñun bi ñu koy gis ñu ngi ko doon fàttaliku ci clip boobu nga xamante ne xale yu bëri si lañ jànge way mu doon rap euh, nekkoon gox bi système ñu hmm. jékki-jékki gisatuñu Backa xamatuñu fu Backa nekk ñu ne Backa nga États-Unis lu war a doon loolu da demoon tournée daw wala. <laughs> yaakaar naa ni tournée nag. Euh, ku ci yóbbu sa bopp mënoo daw. Uh-huh. yaay boon sa bopp ci li ma yaakaar. parce que euh, musique moo ma yóbbu woon. Uh-huh. Euh, te groupe bi ma nekkoon ñu ñoo yóbbu woon suñu bopp am fa contrat dem. Uh-huh. bi nu demee ci tournée boobu noonu ba ñibbisiwaat tamit danoo delluwaat. moo lay wan ni liggéey bi nga xam ne ci la nekkoon moom moo ñu yóbbu te moom moo ñu téewoon euh, moom moo ñu indiwaat te ba léegi nii ci la nekk. waaw euh, Baka Niang nag boo gisee lu tax mu euh, demoon États-Unis nekk fa dafa amoon ci liggéey bu mu nekkoon. Mm-hmm. ah nekkoon fa gox bi sem parce que ñun tournée yi ñu doon am. da doon gudd trop. Mm-hmm. waaw da doon yàgg. ay tournée yoo xam ne ay un an la ñuy signé contrat bi. Mhm. nekk ci festival yi. xam nga war koo matal yooyu. Mhm. loolu moo taxoon gox bi sem mhm. bu demee États-Unis tamit. Euh, dafa doon yàgg. ñu dem nag ba nga xam ni euh, contrat yi suñu borom dimbali ñu ba contrat yi da doon ñëw di ñëw di ñëw di ñëw. Euh, nga xam ne bu ñu ñëwee Sénégal benn trois mois 4 mois lañ fiy def delluwaat. bu delluwaatee nekkaat fa lu mat ay un ba deux ans. bu demee foofu nag ci la liñ ñu am réew boo ci nekkee. da ngay dem ba da nga am famille am ay xarit am fa mbokk. miin dëkk ba. di dund ko ñoom ni ñuy dundee. loolu moo fa dal ñu dem ba am fa ay famille am fay xarit am fa lépp. ba waaw takk fa soxna ah, dem ba xam nga yor seen nationalité ak lépp. du dëgg. Euh, loolu daal moo waraloon kii mais ñun Sénégal la ñu am. mais Bakka yàgg nga États-Unis nag. Euh, waaw yàgg naa fa parce ñuy gëmul kuy jàng wax fekk Bakka dem na. <laughs> waaw euh, ma xool def naa quatre-vingt-dix-neuf. Euh. ah laa demoon États-Unis mm-hmm. euh, mais nag ci diggante bi ñun. heure bu mu fa defee benn un an wala six mois six mois daal ay deux semaines lañ tàmbalee. Mm-hmm. def euh, def euh, un mois. Mm-hmm. def deux mois mm-hmm. ah def un an après def deux an boobu ba léegi nag suñu borom mi ngi suturaal. taxul ñu toog fa lu yàgg dina noonu heure bu contrat bi jeexee dinañ ñibbisi xool suñuy mbokk. xool suñuy famille xool suñu bëgg-bëgg ak suñuy am di jàmm ak suñuy fan yi fi nekk. ah daal di delluwaat ba léegi nii noonu la ni mission boobu lañ suñu borom jox. waaw bu ñu nga xam ne dañ la dab si biir web TV bi la doore ba Niang nag euh, fi mu dooree moom mooy euh, li nga xam ne mooy njëkk ne ci Baka moom mooy euh, first of all doomu géwél la mm-hmm. ah war a dund aar war a ci aar mm-hmm. ah, war a mën a tëgg mm-hmm. ah, loolu lépp ma jaar ci sunu borom nag dimbali ma bi ma fëlee ba ñeme ba xàmmee dama tombeek li nga xam ni moom mooy ah, hip hop rap soul ay PBS nekkoon fii ay Daara J ay ay ay Black Mbollo ay Ah, yeneen groupe yi ay Sini Flavor mhm. ah, ay waa bi. Mhm. xam nga mu nekkoon rap yëpp tas na léegi. waaw mu nekkoon rap soul man loolu laa tombé loon. Mhm. moo tax euh, bi ma formé benn groupe bu ñuy woowee pëti Gox bi. Ah, ñi nekk ci gox bi nag euh, ñoo ma féete grand frère. mais ñoo bokk benn koñ bu nu yaroo. Euh, bi ma demee ba sentir ñoom liy def mu neex ma trop. ma daal di formé benn groupe bu tudd pëti Gox bi. ñoom seeni i petit lañ. bi ñu demee ba ci kanam nag ñoom seeni i parents leen ci côté jàng métier. biñ ba ci kanam ñom ñu bàyyi. man bàyyiwuma. Euh, gox bi tamit gis ni bakkam yi ku bëgg limi def la té aussi mën nako mm. amna talent bi. Mm. ci lañ ma wo ni ma mën nga ñëw ci grand gox bi. Mm. ma ñëw seen biir. tombé ak affaire bi système bi ñu doon def ak yépp changé. suñu borom def ci xéewal ñu daal di am contrat États-Unis bakka fii la dooree muy Pikine ginnaaw raay. Mm-hmm. maa ngi nuyu waa Pikine ginnaaw raay bu baax. ragal du jéggi raay de dégg naa maa ngi nuyu waa Pikine ginnaaw raay <laughs> ah. di mm-hmm. nuyu Ecotaf bëri diis. Mm-hmm. ah, ah bu bees ak ah, tëli bu mag. sa feef la daal. waaw foofu daal sama sama area la gisoon la dem si yàlla si. waaw Ndongo Lo nag euh, moom it ñu bokk bëgg-bëgg. Mhm. xam nga bokk fi ñu jugee. Mhm. bokk fi ñu juddoo ak fi ñu yaroo. Mhm. ñooñu li ñu boole day daal di yomb. muy muy bëgg-bëgg doomu Pikine bi. boole woon nañu. Ah, ah ak bëgg-bëgg musique bi nuy def mm-hmm. ñu xamante maak moom bu yàgg lool mm-hmm. mu nekk sama sama sama sama sama askan mm-hmm. ñu bokk géwal gënu doon moo tax bi ñu ko soxlaa tamit ñëw ba ci moom di ko wax affaire featuring ndeysaan su ma fàttalikoo doon wax naan sama diggante yéen yoonu mën a yoonu ménageur néew ci waaw jili ñang mu ne amuñ ah, ko bàyyi max ñi samay rakk lan loolu bëgg ma defal leen waaw maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit grand frère bu baax ay noonu nongo ñu and ak mom def ben featuring bu am solo. Mhm. euh way ci pigine waaw bokko na ci len gëna a ci waaw morceau bobu tot jamono ba légui ni sax. tay nak ngeen xewon nak neko na star ñu top seen gannaaw di daw rek xalé yi top seen gannaaw yi nangi nangi rek mais légui xewatu len <laughs> no ñun ñun ñun suñu borom dañu dañu dañu defal lo xamni ni. Mhm. Euh, ñu ngi sant yalla suñu borom. Mhm. amna ño xamni tay vraiment ñu ño doorandoo won ah, commencé woon doo. te ñooñu kenn déggatu leen. dem nañ ba dañu bay mais li suñu direct la nek te suñu borom mi ñi dimbali ba fu ne salaamaaleykum ñu ne maaleykum salaam. waaw li may faral di wax dafa am ñoo xam ni dañoo nekk ci musique. mais suñu boroom day def ñoom nekkuñ ñoo xam ne dañuy yéeg ak a wàcc. waaw dañuy yéeg rek taxaw fa. lu ñu génn ñu nangu. suñu borom suturaal nañu ba ci ñooñ lan bokk. ah euh, Ndongo Lo tamit nekkoon koo xam ni comme ñu wax sànq rek. danoo bokkoon bëgg-bëgg. Mhm. ñun bokkoon pikinité yi bokkoon pikinité yi mun doon ñaax. Mhm. ah mhm. Euh, di rafet lu ñuy def. te heure bu nu yëngoo mu ni man dama leen a sentir. ñun tamit ñu sentiroon ko suñu borom def xéwal ci li nga xam ne moom lañ génne woon. ah waaw ba léegi nii rek ba ba ni ma raamee ba ñëw ci bëgg naa lool. ba léegi nii lu ma génne léegi nag ñu gis la nga def sa sa sa sa carrière solo nga nekk léegi te da ngaa dugg si biir mbalax mi moom gis nañ la album mm. beeg yooyu waaw. Euh, kan nga la produire alhamdulilah man maa produire sama bopp. waaw ah, ñëwee après ba xam na xaalis que ñi lay <laughs> <laughs> <laughs> euh, maa ngi euh, sant ñi nga xam ni nag ñoom ñooy nekk sama ci sama staff. Mhm. di ci jàpp. Mhm. ah ku ci mel ni Amadou Seck. Mhm. ah ku ci mel ni Ciko Ña sama rakk la ñu bokk ndey baay. maa ngi kontaan ci ñoom ak ñi nga xam ne rek samay frère lan te bàyyiwul ma benn yoon. te lu ma dëgmal rek ñu xam ne lii nii euh, bakka moom la bëgg kon nañ ko ci bëggalee ak ñi nekk tëli bu mag ñi nekk Ecotaf ñi nekk ginnaaw raay sama fans yi mm-hmm. parce que parce que euh, euh, parce que masa fajul góob mais seet na xol mm-hmm. dafa am ñoo xam ne dañ lay encouragé ba ba ba ngay ba ba ngay ba ba ngay noppee doon la nga doon mm-hmm. kon mi nga ñu indaale waaw bi ma jógee États-Unis nag euh, album bi laay indaaleel. te mm-hmm. al avant album bi amoon na single bu ma génne. waaw yaa ngi doon euh, mm-hmm. ba léegi ni dafa des ci xol yi. Mm-hmm. ah ma jógee fa indi jayna ba. Euh, léegi rek lañ ci doon waxtaan. nekk morceau boo xam tamit li ko fi jëlee du yomb. parce que moom moom waxuma la neex mais dafa neexexee. man jayna ba dégloo gu ma ko. waaw jayna ba. mi ngi daw wala clip bi jàllagul mi ngi daw. mi ngi daw pourtant léegi nii seen kër gi nii rek maa ko dégg sànq muy ki ci ki ci ki ci ki saal bi di yëngal kër gi. waaw waaw naan ma li nga li nga léegi. li nga li nga mës a lépp lii ma ci dàqaar. Mhm. waaw loolu sant suñu borom la. ah ma jugee foofu ñu indilaa leen sama jigéen. Mhm. moom mooy sama dernier clip ma waaw sama jigéen bi te avant sama jigéen bi waaw parce que dafa nekk loo xam ni euh, lu saxoon ci xol yi la mhm. waaw xam naa yow mii sama jigéen moom yàgg na laa yëngal <laughs> waaw parce que mooy comme ni nga ko waxee woon rek euh. Euh, ñu jógee foofu ma indi Seydina Mohamed tamit ah, mu nekk morceau boo xam ni mm. euh, vraiment laal na ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. sunu sang boobu mm-hmm. waaw loolu nag loolu lépp mi ngi ci biir album bi nga xam ni uh-huh. moo tudd bët set mm-hmm. waaw nekk nii am neuf titres neuf titres yoo xam ni bu ci nekk rek boo ko laalee xam ni dalay yedde wala mu yeete la waaw da lay yedd wala muy yedd bu yeetewul dit loolu ay naxaate la ay naxaate la loolu dañ ciy bàyyi xel na ñun ay doomu géwél lañ dañuy way suñuy nawle di way mhm. suñuy xarit mhm. di way suñuy am di jàmm mais nag mhm. ah, dañ ciy sóoraale loo xam tamit texte bi ak li ngay wax tamit na yedde ba pare. koo koy woy nga xool jikko jikko jamu yelool nga woy ko ci. waaw loolu daal moo nekk ci biir album bi nga xam ni mooy bët set. muy neuf titres yi moom nga ñu la wax loolu mi ngi nii. Mhm, mhm. moom laay indaalee euh, mu nekk liggéey boo xam tamit liggéey bu euh, bu mucc ayib lañ ci def. Mhm. waaw liggéey bu doy waar ay professionnel rek ñoo ci nekk. parce que album bi ku ko déglu danaa ma bakka li may njëkk a laaj mooy ñan lu tëggal album bi. waaw ñi ma tëggal album bi nag nekk ñoo xam ne ay gaynde leen mm-hmm. waaw ñooñ tey munoo wax ci musique Sénégal te tuddoo leen ku ci mel ni tey euh, euh, Laylo mm-hmm. ah, mu nekk Super Étoile mm-hmm. jàpp na ci bu baax a baax euh, ku ci mel ni Zil Diop mu ah, nekk ci Pape Diouf sama grand frère maa koy nuyu moom tamit jàpp na ci ah, ku ci mel ni Tafa Tafa tamit joué guitare super étoile. Mhm. moom tamit moo ngi ci. waaw borom loxo bu ah. neex bi. Zanu tamit ñoo ñoo ah, ñoom Samba Ndox ñoom mais foog ma tudd leen parce que nag. ku def dara waaw dañ cee jàpp waaw moo na rek bon. ñi la demee kon buñ ci sori mais vraiment ñoom ñëpp a ci jàpp. Mhm. ah ñoom ñoom euh, Ibou Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. Mhm. ku lim daal da ngay juum. Mhm. mais ñoom ñëpp ngi ci biir te maa ngi kontaan ñoom aussi di big up ki nga xam ni moom mooy Lamp Fall. Mhm. di kontaan ci moom. mais Bakka boo gisee léegi waaye bi bi ngi dem 99 bi nga fi bàyyi di dem immigration bi nga ñëwaatee lépp ci tournée yi nga mujj toog di dem ak ñëw ak yooyu nan nga gisee actuellement ni aar bi fi mu toll. Euh, waaw aar bi fi mu toll nag euh, mun naa ni euh, ku ne xam na ni dafa dafa dafa dafa dafa daf metti mhm. a metti ci benn côté. dafa xaw Euh, nit ki. Mm-hmm. tey boo dee liggéey rek. la ngay liggéey danga nga war di mën a gis 100 pour cent. Mm-hmm. waaw ni ngay ñemee pour di génne di ci def. Mhm. waaw noon nga. noonu nga noonu nga waaw noonu nga war a oser tamit pour pour jotaat ci li nga ci def. Mhm. mais dafa xaw a sooxee ci côté boobu. Mhm. parce que ku ne xam ne da ngay génn sa album fanaan studio def ci xaalis. def ci huit millions. yaa ngi dégg wala sept millions. ñëw téye ci benn deux millions wala un million. est ce que di nga ko jaay sax loolu. waaw ni ngi noonu loolu dafa xaw a kon première métti bi dafa bokk ci loolu. Euh, beneen bi ci topp moom mooy. ku ne xam na ni euh, nga jógeeti foofu ñëw say programme mhm. say soirée mhm. ah sa staff bi nga xam ne moom ne sa ginnaaw mhm. xaalis bi nga fay def rek kenn du xam ni muy toll mais da nga ciy mën a da ciy booleeg xam nga di soññ sa public pour ñu ñëw say affaire xam nga di daj di lu nekk dafay métti parce que man gis naa ñoo xam ne sax dañu may ticket rek pour bëgg ñu ñëw dafa métti dafa métti am na ñoo xam ne dañuy jël seen ticket di ko maye pour nit ñi ñëw mais tamit euh, loolu ku ko koo xalaat rek imagine ko xam ni métti na du dëgg yàlla baax na. li may faral di ba mu demee noonu mais damay gis ba léegi ku jug rek waay. waaw euh, dafa bëri nag ku jug rek waay. mais senegal fii. Mhm. xam nañ ñuy ñooy wëyli wëyli yi. Mhm. ñeneen ñi dul ñeneen ñi dul Bakaña bu ñu toogee dinañ xam ñan ñoo mën a. woon si te nit yu mën a way Sénégal fii rek ñett <laughs> ñi nga xalaat ñett rek. ñu gën a ñëw sa xel. njëkk a mais waaw maanaam ñett sax day tuuti. Mhm. waaw ñett sax day tuuti. bokk si Ismaël Lo bokk si Thione bokk si Open bokk si. ñooñu bokkuñu ci. déedéet. Euh, waaw ku ci mel ni course bi. waaw course bi waaw euh, kon kay dañ naan rek. Euh, sa génération yow ñi nga jàpp ne sa génération lañu. waaw ok. Pape Diouf dafa mën a way mhm. sama grand frère bu baax boobu mhm. Wally Seck dafa mën a way mhm. ah Pape Birahim dafa mën a way ah Assane dafa mën a way ah euh, ñi mën a woy daal man. Assane Ndiaye euh, men men waaw euh, góor gu sama xarit boobu maa ngi koy nuyu ñooñu bokkuñu si course sa génération bakka laa wax c'est vrai que xale yi fi nekk sax yow a woy ndax macha allah bi ngay génn télé ñoom génnuñu télé ñoom boobu ñu nga sa yeneen ñu ngi ci ah, comme garab si kaw lay fekkante mm-hmm. fii jamono ji comme ni ma la waxee ne sama suñu maam xaar mbay day wax ne aar bi léegi bi du biir dafay xëy rek wasit da ngay xëy rek gis ñëpp wayandoo dëgg la ah, comme man mi ma jékki-jékki rek dëgg fi bëgg a ree ñëw ne damay way <laughs> waaw bëri na fi ñoo xam dina xëy rek dañuy woy mm. mais yow ñan nga jàpp yow ñan nga jàpp comme acapella xam nga comme tey fi tey dañuy gis sama si plateau yi bu ñu def plateau léeg-léeg nga ne benn artiste acapella ba mu na <coughs> sama baat bi <coughs> pétaw c'est <coughs> baat bi c'est nangam ak nangam fekk na yow la lay leer ne moom <laughs> dugul studio arrangé wuñ ko ndeysaan ndeysaan waaw dëgg la mooy li ma la wax léegi rek ma <laughs> euh, riirandoo ji <laughs> bari na mais fii vraiment am na ñoo xam boo leen xalaat ñoom ku leen xool xam ne dañoo mën a way mm-hmm. waaw ku leen xool day xam ne kii dafa mën a way te nag xale yi am na xale yi ne ci ginnaaw di ñëw ñoom tamit dañoo mën a way mm-hmm. waaw ku ci mel ni tey li naan wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara mm-hmm. ku ci mel ni euh, baaba sama petit frère la mm-hmm. ah nekk ci banlieue bi xam nga dafa mën a way waaw ñoom Thiat Seck ak ñooñu ku ci mel ni Thiat waaw maa ngi koy suivre macha allah Thiat mën na way ku ci mel ni Baye Ousmane moom tamit mën naa way ñu ngi ñu ngi ñëw ñoom ñu ngi ñëw waaw ñu ngi ñëw ñooñu ñooñu ñooñu mën na noo way waaw mais Backa euh, bu ñu gisee Backa Niang sa carrière yëpp macha allah dem beeg ñëw bi mais est gisoo ne euh, tukki day suul naan parce que man pour man heure na fekk xale yi waye wayantu nii yëpp du ñu way sa kanam yow mais xale yi wayantu nii yëpp il faut que ñu way sama kanam mm. parce que man damaa fekk ñu ma ñoo xam ne ñoo ma mag ci way fopp ma way seen kanam non boo déggee dañuy way sa kanam tukki bi ñuy wax ne tukki parce que dañuy gis des des fois ñu gis benn artiste Sénégal ñëw ba commencé cartonné bàyyi ko fi dem mën nañ ci citer ay kaay ay artiste artiste artiste yoo xamante dañ ko fi bàyyi dem léegi nag boo demee yow boo ñëwaatee sa place da ngay fekk xale yi toog fi mais léegi doguma la yàlla bu la yàlla dog mais euh, tukki bi ñuy tukkee ko ñëw ñun ci ci biir way la ne Mm-hmm. way moo ni yóbbu de. demone modou modou yu jaay benn casquette fi ben dal fi daw do dakande on nak suma sayon sax suma sayon sax meuna def loolu mais dama ko mënul. Mm-hmm. waaw parce que ñima nekkal États-Unis mm-hmm. euh ak ñima xamni ñom lay fekk bitim rew ñep euh ñom xamna ni Baka mënul sax li waaw man musique dal la xam. ba tey ñu gis na yow ndawul banlieue nga gis legi insécurité bi ni mu amé ci Sénégal war wërngal ko particulièrement ci banlieue parce que dégg nga banque bi fa toj barki dem mo Ndiaye nan nga koy dundé te nga nek porteur de voix. waaw ko loolu li ma ciy wax rek moom mooy euh, doomu aadama yi dañoo war a ànd ak dal. Mm-hmm. jamono métti na. Mm-hmm. ci côté yu bari. Mm-hmm. mais nit ku nekk da nga war a calm down da war a dal. dal bi nga war a dal moom mooy da nga war a dal tey xool ci sa bopp. di xool ci sa famille. ah di xool ci say sister. di xool ci say brother. di xool say wéjur parce que doomu adama bu nek sunu borom bu la ak sa sago ba paré da nga wara jël li nga xamni mom la suñu sunu borom bolé bolél mhm. nga diko nga diko dundu mhm. bu fekkente ni da ngay dogalé waté mhm. ku dogalé won sa sister bi nga bokkal ndey ak baay du la neex bu ni da ngay da ngay kare ku kar say waajur du la neex bu fekkente ni da ngay jël alalu jambour ku fekk say say sen wa kër ñu def sen ndenc ba paré nga toj ko jël ko du la neex kon ni ku nek na bopam euh ah, ci limi def nit ku nekk na xool famem ci li muy def. loolu moo am solo loolu laa ciy wax tanu tanu bañ a tilimal deru banlieue bi. ñu baax ñaa nga fa de. du am na ñu baax ñu fa nekk. Mhm. am na ñu ñu ñu gën ñu fa ne. Mhm. kon nag euh, saa su nekk rek man su ma déggee loolu sax sama xol du neex. Mhm. xam nga mhm. ay gentleman lañ mais tamit danoo war a di di di bañ ku yëkkati dara di ko teg ci suñu der mhm. am na benn clip boo xam ni maa ngi koy seetaan fan yi clip bu ma def ak euh, sam benn frère mhm. rappeur la nomi euh, maa ngi koy seetaan fan yëpp ci télé bi maa ngi naan yow kaay kaay bul ragal yow kaay kaay bul ragal mbubu ma ma soloon summi naa ko man na ma melo melatuma ko xam nga kon Pikine xamuñu dara lu daan seen doole duufal seen i nafa kon bokk lañ ñi nga xam ne yaa xamoon tax a jug képp koo xam yaa ngi bëgg a def lu ñaaw wala nga di ko xalaat bàyyi ko te xam ne suñu borom bëgg ko kenn bëgg ko nit ñi nga dëkkal bëgguñu ko say waajur bëgguñu ko mm-hmm. yaatalal te nga rafetal. parce que ñun Pikine xamuñu lu ñaaw. Mm-hmm. Mm. lan mooy ay projet Bakka est yaa ngi joué fii Sénégal yaa ngi yaa ngi def ay soirée. waaw maa ngi maa ngi maa ngi def ay soirée. Mm-hmm. maa ngi def ay soirée gérer euh, naa fi euh, ay soirée yoo xam ni maanaam. trois semaines quatre semaines passées soirée yi ngi bougé nag def parce que mm-hmm. répétition yi lañ nekkoon. Mm-hmm. ak promotion album bi waaw mais mm-hmm. léegi commencé nañ soirée yi. parce que def nañ ay ay quatre dates yo xam mom moom lañu doog a romb nii. Ah, di wax rek ni vraiment bu fekkente ni tey euh, dëgmalaat nañ yeneen programme te xam naa incha chaque semaine. ñi ngi pare pour JFN mais amaguñ foo xam date fixe la nag. waaw parce que lu jaar nañ Pentola. Euh, jaar nañ euh, Blue Saxo jaar nañ. la villa. waaw mhm. bi nekk virage. Mhm. jaar nañ fa. Mhm. te am na yeneen événement yoo xam ne ñu ngi koy dëgmal côté Almadi bi. incha allah dinañ jël ay boîte foofu di fa woo suñuy xarit ak suñuy. fans loolu daf ñu neex comme ça ñun waa ñu mën ñu mën ñu mën a enjoy. waaw comme ça ñu mën a xam ne bàkk mi fayul daal carrément parce que man foogoon ne sax bàkk léegi xëyu na fay <laughs> euh, li may wax moom mooy damay bëggee ñi nga euh, ñoom ñoo nekk ci biti. lu ci mel ni waa Argentine maa leen di bëggee bu baax. waaw Argentine moom dina fay xayma waa Argentine maa ngi leen maa ngi kontaan ci yéen bu baax a baax a baax sama fans yi fa nekk. Mhm. ak sama famille yi fa nekk. Mhm. ak vraiment ñi nga xam ne ñooy samay xarit nekk foofu. Mhm. waa capital ba ñoom soxna maa ngi leen di bëggee ñoom xaarim ah maa leen di bëggee sama ñeeño bala mañ sa boobu ak ñoom Dan ñoom Daam. ah ñoom Cheikh Diagne ak. yaa ñoom ñëpp maa leen di bëggee. ñoom samay xarit lañ yaa ngi dóor de non non non du dóor du dóor samay xarit lañ waaye États-Unis moom ñooñu ku ne xam ne sama waa dëkk lañ du deug parce que mo waral nga ma da nga raar ak da nga def ni affaire yoy da nga mur mur ji won waaw mhm. liggey la parce que ñom tamit mhm. fuma woté teug soirée day fess del ta ñom ñokoy fessal han mhm. ah, nek ci new york city ñom doy han ah, ñom ñom ñom ñom ñom ñom waaw ndoy ndoy mali maram ndoy ma koy nuy mamadou ndoy sama xayit bob ma koy nuy ko non mom borom bax la ay ñom modou gey han ah, ñom ñep ñom amdi mustapha wa 116 wa arlem baw kenn han di nuyu bu sa balek ndey fatou diop ak ci ko ñaaw ma ngi koy bégé baxa di bëggee tamit wa Italie borom Rome ñom ñëpp ma leen di bëggee. Mhm. parce que nak dafa neex nit def dérangement ñëw nga yëg li mu def. waaw yëg-yëg dafa am fekk ko ci say programme mhm. taxawuko ko. Mhm. yaa ngi dégg. Euh, ganale ko ba vraiment bu ñibi sax du bëgg ñibi ñibbi. loolu dafa neex te il faut mo wax ko ci yu mel euh, di profiter tamit Macky Sall. suñu président bu baax boobu. nga xamni nak vraiment bu fekkente ni mi may dégg. waa Argentine ci boppam dañ leen war a dimbali utal leen fa béréb boo xam ne bu ñu bëggee seen passeport yi. di ko renouveler yooyu. Mhm. ñu taxaw ci mu jàppandi leen. Mhm. parce que ñoom dañ maa jël def ma seen ambassadeur. ok waaw Argentine. Argentine parce que dañ ni ma fii Youssou Ndour moo fi mës a ñëw. Mhm. deuxième personne bi la. mu loolu. ñun ma nag heure boo toogee tee di di bëggee yeggal ñu suñu wax. ci na leen Macky Sall ci passeport yeeg seen carte d'identité yi. parce que dañ élection jotee dañuy bëgg a voter. nañ ci taxaw waay. waaw nañ naa la ko tamit yow it nga gën ma ko biral <laughs> fii rek. dégg nga ñoom lañ waaw waaw jéem a nañ ci taxawal waa Argentine. Mhm. Ah, dimbali leen ba nga xam ne dina mën di defar seen seen carte d'identité yi. Mhm. aussi tamit seen passeport yi ñu koy mën a renouveler bu baax a baax. Mhm. waaw maa ngi kontaan nag di nuy suñu président bu baax a baax. ah di nuy sama sama sama grand frère Youssou Ndour ak Doudou Ndiaye Mbengue. maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax. di wax rek ni nag ñi nga xam ne tey. ñoom la caabi féete ginnaaw. Mhm. yaa ngi leen suñu borom génn ci loolu ñu nekk. du dëgg. Mhm. Euh, ñi nga xam tamit ñoom la ñoo amadi ñoo am wér-gu-yaram. Mhm. ah wala yàlla na yàlla fëgg yaram yi. ku ci am wér-gu-yaram yi suñu borom gën koo wéral ba nga mën a ànd sa sago. parce que ñun danoo war di way. doomu aadama di ko déglu. di ànd xaalis ci poos ñuy bëggee waaw di bëggee waaw di bëggee kon rafet na waaw loolu daal laa xam ne moom lay tàgg waaw ñu ngi koy jaajëfal baax a baax kon appel baa ngi noonu président Bakaña nee na immigré yi nekk Argentine dañu am problème carte d'identité ak problème carte électeur te comme vote yaa ngi ñëw dañuy bëgg voté bu ko defee ñu mën see jàpp bu baax a baax mi ngi noonu loolu daal bu leen taxawlee moom wax dëgg yàlla moom affaire bi leer na leer na ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal bàkk baax a baax di jaajëfal aussi sa ménagère am moom ah, itam nga xam ne jàpp na euh, ci liggéey bi ak sama mooy suñu jabar mooy chéri ci ko ñëw waaw waaw mooy chéri ci ko suñu jabar ñu ngi koy nuyu baax baax di jaajëfal ñëpp di leen jox dox daje semaine bii ñëw ak keneen ku may àndal di jaajëfal ma itam sama équipe bi am ban ci moom itam maa ngi koy béggee bu baax baax jaa ngeen jëf ba semaine bii ñëw ak keneen beneen daanaan merci Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.